tamit euh, sorti sëñ Habib si ab après loolu Aboubacry ne dafay bàyyi dafay bàyyi woy bi est-ce que mën nga ñu wax histoire bi nan la demee. Euh, sëriñ Habib maa ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di ko màggal di yeesal sama cofeel ci moom ndax boo nee Serigne Habib ne Cheikh Mouhamadulil Mansour boroom daara ji. boo ko tuddee tudd baaba kër si boo tuddee Serigne kër si tudd Seydil Hadji Malick kon sëriñ xabib bu waxee ci man lu war la ndax ñoom ñooy suñuy sang ñun ay taalibe lañu tey su ma tiimoon sa maam di ko wax di wax ci moom am na lu lay neex ci moom am na lu la dul neex ci moom xëy na su ma tuddee yow sa maam xër mooy tax ba may tudd sa maam woyuma maami keneen maami sëriñ xabib laa woy Euh, kon nag bu fekkee ñun dañu def loo xamante ne euh, waruñu ko def ñoom ñoo war a wax ah ndax ñun ay taalibe lañ di nekk ci mission bi xër rek xër ak bëgg sëriñ Babacar Sy man dama bëgg sëriñ Babacar waaw di ko way di ko di ko di ko kañ di wax ci moom lu baax waaye li ma la waxoon sànq bu amee bànneex am nakar am am am am asamaan am suuf dina am ñu bëgg dina am ñu bañ xëy na peut-être ñàkkul ne am na ñu doon xaw a bëgg a jaxase sama sama sama sama si li ma nekk. est-ce woon tamit nga bañoon comme que da nga ne dafa am ñi bëgg am ñi la bañ est-ce que jarul woon tamit nga bañoon génne ne da ngay bàyyi woy est-ce que jaru ko woon parce que tamit boo nee da ngay bàyyi woy da xalaat tamit ñi nga xamante ne bëgg nañ la te ñi ngi sa ginnaaw depuis bi ngay commencé. non en fait du question que ne dama maanaam sa ça veut pas dire que man am na ñu ma bañ ndax. man leen rek a ma ñor mooy bégal leen rek ah j'ai pas damay bàyyi woy je répète dama wax ne ci ñi nga xamante ne xëy na man neexuma leen bu ñu naree dox sama diggante ak sëriñ si man ma bàyyi way ndax dara jaraluma ko je pense que leer na képp koo xamante ne nar na dox sama diggante ak sëriñ si ngir ngir jaxase ma ak ñoom billaahi wallaahi taalaahi ma bàyyi noonu laa ko waxee parce que euh, ñun amuñu. kon loolu day remettre en question sa da li nga ne dafa am sa cofeel la ci Serigne Babacar si parce que waxu noonu warul tax tamit nga bàyyi euh, di woy ki nga xamante ne da nga ne yow da nga am cofeel ci moom te sa yaay moo tax nga dugg ci di di ko way. waaw xam nga xam nga xam nga man su ma demee bay woy Serigne Babacar ñëpp di ci jot dañ ciy soog a jot ñu ngi ciy soog a jot. mais bi may woy Serigne Babacar Sy boobu réseaux réseaux sociaux yi ni mu demee nii demeewul noonu maanaam bi ma koy wax maa ngi naan dinaa toog sama néeg di tagg Serigne Babacar Sy wala di dem ci daayira di woy Serigne Babacar Sy mais pas comme ci réseau en fait réseau yi dafa doy waat léegi yow intention bi ngay am ak nit ñi bi ñu koy gisee bokkul ndax di nga woy léegi léegi dara ñu jël ko dagg ko bëgg la mettre en mal parce que yow boo comprendre rek. da nga naan kii dafa yabaate wala kii dafa di wala kii dafa le maanaam ñun cofeel gi ñu am ci sëñ Babacar si am nañ ko ba pare tu vois am nañ ko te dara du tax mu deñ li ñu war ci sama diggante ak suñuy soppe tamit du du deñ gis nga woy gi nga xamante ne moom laa woy sëriñ Babacar si euh, illaa yow mi diin du soof ndax man abu Aboubacry balaa may way muy neex kenn man lay njëkk a neex te tëbuma tëb rek Euh, xam nga Cheikh El Hadj Aziz effectivement moom moo waxoon naan bu ngeen dee way Serigne Babacar si boo leen ko xiinal bu leen mbalax ba leen tamay yàlla dogal yàlla boole ma ay xaadr te xaadr nee nañ bi yonent bi di jóge Màkka di dem Médine ñu ngi ko doon tëggal tabala kon keneen ku ma ci way rek dama ciy barkeelu donc dama yaakaar ne sëriñ dama fi ma toog may man damay toog di xalaat lan laa war a mën a way sëñ Babacar mu neex mën naa jékki rek ne xaaral ma créer dara way sëñ Babacar wala ma jékki-jékki gis benn instrument ma ne xaaral ma jéem ci way sëñ Babacar booy sëñ Babacar way naa ko ci ay instrument yu bëri parce que damay daan am yëg-yëg bi donc way bi ma way sëñ Babacar ci tabala nekkul du lu ñu mën a taxaw expliquer ko fii mais dafa am fu mu jóge te bu ñu ko waxoon tamit je pense que ñëpp dinañ dinañ xam fi mu jóge donc nag euh, mu ngi noonu daal.